يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره jërëjëf mbokki auditeur auditrices yi nga xam ne yéen ñuy topp ci rajo Darmanko di rajo askan wi ci leen di gërëmaat di leen nuyu di leen sargal waaye di rafet rafetluwaat bu baax seen kóolute ci ñun euh, nuyuwaat kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan ñaanal leen sàkku ci ñoom ñaan amaan mbekk ak contentement bu baax nag teewaat ci seen euh, émission bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp euh, muy jamonoy tey ak li ci réew mi dinañ faral bu ñuy door tamit di ñaanal ñi nga xam ne caabi jëf leen ginnaaw ñu ñaan caabi fete leen kanam ñu génn fa ah, te buñ fa génnee bañ fa delluti ndax duñu taay dox ne kër googee jombul kenn lokal mooy tuuma ak la fay dugal doomu aadama ah, duñu fàttee dugg ci biir hôpitaux yi ci poste santé ba ci biir kër yi di masawu ña fa tëdd noom it ah, tey ñaan suñu borom saafa seen jàngoro ba nu mën a dellu seen i njaboot noonu la ñu ñi nga xam ne dañu jiitu kër dëgg yàlla na borom bi yóbbu leen caajee ne gën a kawe yàlla na ku nekk am jàmm yàlla na am jàmm fépp fu nit toog ñu àddu nga ñuy teewlu rek jàppal ne fekk nañ la fa nga nekk di la nuyu waaye di la sargal ñu fàttee mbokki téléspectateurs yi nga xam ne dañu ñuy topp ci Darmanko TV ñiy ànd ak ñun ca site internet ba ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye nuyu kulu technicien kulu animateur euh, képp ku nekk ci kër gi rek ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax euh, ni ñu koy defee nag xam nga ne bi la émission dama ci ànd ak moom soxna maam Kumba madame Fall euh, dama koy daal di bàyyi rek mu nuyoo ak suñu auditeur ñu doog a ñëw ci suñu thème du jour Fatou na maa ngi lay fay maa ngi nuyu auditeur ak auditrice Darmanko FM rawatina ñi nga xamante ne ni nag ñooy topp seen émission bi nga xamante ne ni moo di jamonoy tey ak euh, li ci réew mi dañ eh, koy faral di waxee rek jamonoy ak li ci réew mi nag nekk na émission boo xamante ne ni à chaque fois buñ ci ñëwee dañuy lijjanti li nga xamante ne ni moo nekk si kër yi li nga xamante ne ni moo nekk si bërëbu liggéeykaay yi li nga xamante ne ni tamit moo nekk si jotaay yi maanaam fépp foo xamante ne ni am na lu fay xew rek eh, dañuy ñëw teg ko ci table ji ñu daal di koy waxtaanee ki ne Sam tey nag dama lay bàyyi nga daal di digtal mbokki auditeur ak émission bi eh, thème bi nga xamante ne nii moom lañ leen indil tey. Ah, am na solo mais tey dangaa dellu dangaa dellu disquette dangaa dellu ci say 18 ans ni nu ni koy waxee. mënu ko nii laa def sa sa macha allah. Eh, ak sa buddi baax na torop. da ciy baax balaa wujj wujj daal laay bañ fi mu toll nii. Ah. Mhm. kon yow est du thème bi tey ci gis sa bopp. Ah. non wujju peccoor gu lañ wax yow tamit waxuñu wujju boobu. ayca mu ngi noonu cant ak ngërëm ñeen la ñëpp ñi nuy bàyyi xel euh, ñi ngi leen di gërëm bu baax di wax ne ñi ngi jot ci encouragement yi ñëpp ñi ngi ciy jot ñi ngi leen di gërëm bu baax baax di wax ne nii rek la di dolli di wax ngeen ngeen dolli ñaani bu baax tey nag ni ñu koy faral di waxee saa su nekk dañu indi benn euh, thème daal di koy fas yéene waxtaane tey dem bi ñu jël ci wujju peccoor gu euh, ñu gis loo ñu ñu mu nekk loo xamante ne ñun ak moom ñoo nekk nekk euh, dañu koy gis euh, ci biir kër yi euh, muy loo xam ne fas yéene nañ cee taxaw def benn seetlu ndax amaana am na ñuy rafetal waaye am na ñoo xam ne tamit ña ngay def safaan ba soxna maam Kumba parce que parfois dugg ci kër goo xamante ne nii danga fay fekk ñaari nit wala ñett ñoo xam ne duñu bokk jëkkër wu ju peccor go nag pour ñi nga xamante ne nii duñu ko xam parce que parfois am na ñoo xam ne nasaraan si da di sànk ba da leen di sànk ba duñu xam wu ju peccor go mooy ñi nga xamante nii seen ñaari jëkkër yi yi euh, ñoo bokk ndey ak baay wala seen ñaari jëkkër bokk ndey wala seen ñaari jëkkër bokk baay euh, ñoo ñee nekk ci kër ga nag ñoom ñoom ñoom la ñuy faral di wax ju peccor go euh, waaye maam kumba ni ma la ko waxee parfois nga dugg ci kër goo xam ne ñaar ñoo fay nekk waaye duñu duñu tuddante sax Mm-hmm. boo duggee ca kër ga booy laajte kenn ka keneen ka mën na laa bañ a wuyu ndax nekkuñu ci jàmm nekkuñu ci salaam li ko waral mooy euh, xañ na léeg rek am-am bi da ci xaw a juwe tuuti parce que bu fekkee ne da nga ñëw ci kër fekk si fa maam Kumba Euh, jëkkëram di mag euh, yàlla may ko teraanga nga ñëw fekk ci ko sa kër ga amaana yow sa jëkkër euh, loxoom demewul noonu nga bëgg a jël maam kumba def ko wujju te li ñu naan wujju pecce ko du wujju mais dañu koy faral di dégg ne wujju pecce moo gën a aay wujju loolu nag du suñuy wax mais waxi société bi la te dañu koy faral di nemmeeku ci kër yi loolu lañ bëgg nag mu jeex fi xañ na tuut nañ ci ci ci ci ci wax ji mais ñu gën a ñaax rek bu ko defee li ñu mhm. naan ñu gën a defaraat toogaay yi bu baax a baax ndax li ma naan nit boo dëkkee moom te xamula ay locataire rek dañoo war a nekk ci jàmm waxatuma laa ñoo xamante ne nii ne seen jëkkër yi dañoo bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo ndax ak mbokk nekk na loo xam ne doo looy faxas ak modd ndax li mhm. ñu naan looy faxas modd rek dafa fekkoon takku euh, ca mhm. euh, kon bu ngeen nekkee ci kër gi nekk ay wujju peccorgo da ngeen a war a nekk ci jàmm da ngeen a war a nekk ci salaam waaye waroo leen di xiiroo waroo leen di ŋaayoo euh, mhm. parce que li may li may li may wax ne yéen mën na leen a bañ a déranger te mën na bañ a nekk dara ci yéen mais da ngeen di xool seen doom yi nga xamante ne nii dañoo war a màgg ëllëg war a te ay cër wala seq leneen ndax ay doomu baay la ñuy doon euh, te yaakaar naa ne ku ne doomu baay neexul rek euh, mhm. danga amul ñoo bokkal baay mhm. kon loolu ñi nga xam ne dañoo nekk ci kër yi soxna maam kumba di sëy dañ cee di bàyyi xel bu baax a baax ndax am na ci wujju peccar ko yoo xam ne maam ah ni ñu nekkee euh, du dëgg du yoon rafetut ña ni ma koy waxee ci tem boobu nga xam ne moom la ñu mujj a def barki Dembo Njaay muy sëriñonte gi tem baa ngi noonu tey soxna maam kumba wujju peccar go ñu daal di lay bàyyi rek nga delloo buub ca mbooy mbooy ñi ngi noonu nag noonu la demee faatu ki ne li nga fi wax yépp mën nañ ne euh, tem daan nañ indi tem te te tem bu ñu indi ñu ne gongo waaye bii tamit doxati ca waxtu ba ndax fi ñu nii daal nekk naa loo xamante ne nii euh, dafa lëmbee kër yi lëmbee na jamono ji sax laay wax ci kaw gàttal euh, ndax mën nañ ne wujju peccorgo bii ñuy wax Fatou Kiné am na ñu dem ba naan sax wujju ko moo gën a garaaw wujju mooy ki nga bokkal benn jëkkër man na loolu man su ma ko dee dégg dafa may jaaxal trop ki nga xamante ne nii bokkoo moom jëkkër am na si ñoo xamante ne ni sax bokkaale bokkuñu kër te ñoom dañuy geer di xel niñ koy waxee dañuy xëppante asib man daal Fatou ne affaire bi doy na waar te sànq yaa ngi souligné ne wujju go di wax li li waral wujju peccorgo mais am na boo fàtte muy ñi nga xamante ne nii seen borom kër yi ay xarit lañ gis nga loolu nag bokk moo gën a tee garaawati sax nag ki nga xamante ne ni moom nga bokkal kër ndax dangay gis koo xamante ne nii danaan ay man man lu may def samay nawle laay fekk sama xaritu sama xaritu jëkkër bi day ñëw jabaram day ñëw nangam ak nangam nga gis mu waajal ko waaj boo xamante ne nii gan boo googu tey di ko gane si bu ñëwee nekk xaritu uh, borom këram indaale soxnaam bu demee ah diw kat gënumaa jonga ma ay diw xoolal la ma def na diw ay la ma ko teeroo bu demaatee yow it da bu ñibbiwaatee pour mu seetiwaat ko moom it da koy fay lim ko lebal ndax dana comme dama demee këram daf ma teeru jaay ma affaire nangam ak nangam kon man dinaa ko teeru fi ñu toll nii daal ki ne mbir bi doy na waar doy na waar ba fu doy waar yem ndax bu ñu demee ba ay wujju ay soxna war a sëy ci kër war a juboole seeni borom kër ku nekk yor sa lamset di daas di dagg fu ñu jaar mu teppeeku loolu dañ naan ñun léegi ban réew lañu nekk ak liñ naan senegaal réewu teranga la ban ban ban dëkk lañu nekk ndax man tey gis naa ki ne benn benn kër boo xamante ne nii xam nga am na ku expliquer ci reportage bi xam naa dinañ si ñëw ci kanam am na euh, benn kër boo xamante ne ni man gis naa ko ñooñu ñeent lañu seeni jëkkër yi ñoo bokk ndey ak baay mais da ci am koo xamante ne ni jëkkëram néewut doole de mais mooy ñooñu nga xamante ne ni bu ñu génnee liggéeyi xamalu seen jabar ñu leen dara. Mhm. jabar ji da dem fóoti bu fóotee ka yeneen jour yi nga xamante ne ni ayewu ko day dem fóoti wala mu dem ut lu mu jaayantu jaay ko jaay ko jaay ko ba ayam ñëw mu togg des fois nag du am lu mu jaay te du fi mën a bàyyi ay doomam ndax njaboot na pour dem fóoti mais day feeñ ci kër gi ndax bu toggee togg gi dina am nu muy mel. du bokk ak ñoom ñi nga xamante ne ni seen jëkkër ngi fi te ñoom ku ci ñam kuddu da ngay jóg. Mm-hmm. ba pare di ko won na ko ñu suñu jëkkër ñooy joxe dépense yow sa jëkkër joxewul dara. Mm-hmm. mais man cause bi dama naan xam nga ñan la. ci mm-hmm. seen jëkkër yi. ndax tey ki nga xamante ne ni da nga jël dépense ba nga xamante ni yéen say jabar yi kat jubuñu man dépense duma ko jaare sax seen loxo ndax seen yaay mi ngi dund. jëlal li nga xamante ne ni mooy dépense bu sàmba xam bu demba xam li sa am ak li mu mënul yëpp. bu ko kenn xam ndaxte gis nga njaboot gi géej lañ ndax kenn xamul kuy wéri mhm. mais tey bu fekkee yow say jabar dañ ñëw mhm. di di di eh, di wane ne man sama jëkkër kat nii laa mel yow tamit ngay wane na man maa fi def nangam ak nangam ki ne kooku jabar yi lu ñu defee ci jëkkër yi lañ ko gisee dëgg la jabar yi dañuy tas kër de mais jëkkër yi tamit dañuy encourager seen jabar yi ñu gën leen a féewali loolu tamit nañ ci bàyyi xel. Mhm. Euh, soxna Maam Coumba da ngay souligner point bu am solo. waxee ndax parfois euh, euh, góor jigéen lu mu def rek ñu ne ca ku góor ka la. Mhm. ndax ni nga ko waxee noonu bu fekkee ne da nga nekk ak say rakk ci biir kër gi yow nga jiitu yàlla dogal ñi nga xamante ne ñoo ci topp seen loxo jotu seen mhm. ginnaaw Maam Coumba pour man la ngay xëy di jox sa jabaru sa jabaru rakk nga jox ko dépense nga xam ne borom këram nekk fi nga yëkkati jox ko dépense loolu. du la wàññi dara mais parfois dinañ ko bëgg a def de mais am na ci ñoo xam ne dañu dañu dañu ragal seen jabar yi mm-hmm. ndax tey bu nu ko defee Euh, bu fekkee am maam kumba dafa jóge fee danaan ko dangaa seytaane wala nangam ak nangam mais bu mu xool bu mu xool euh, li nga xam ne moom la ko jabaram di wax na xool li nga xamante ne nii rek moo yenu maanaa euh, parce que tey rakam jooju fu mu nekk moom la fa nekkal kon bu indee jabar ci biir kër gi te suñu borom def loxoom jotul ginnaaw war na ci di mën di jàpp ni nga ko waxee nag ndax dañoo dëkk ci société bi di gis ay ay ay ay nit ñoo xamante ne ni dañuy def naka su dul noonu soxna maam kumba man gis naa kër goo xamante ne nii moom bi mu fuy sëy si aawu kër ga moom moo fa njëkk waaye nekk nit ku baax ba ay wujju peccoor goom ñëwee eh, dalee na boot maanaam benn wujju peccoor goom dafa sëy si eh, eh, ñu may ko moom ci jëmmam wujju mu ñëw ci kër gi ñoom ñaan ñëpp di jàng mais dana leen carrément dee leen dugg te indi may togg seen añ ngeen dem di jàngi xam ne loolu. borom mhm. xol bu rafet rek moo ko mën. muy mhm. togg seenug añ di di togg seenug ay di ko togg di ko togg maanaam kër ga. ñetti jeege nga fa waaye moom rek mooy xëy di togg kenn ki moom moom a bokk benn jëkkër keneen ki wujju peccor goom la moo koy toggal ñoom ni dem di continuer seenu njàng mais gis nga ñaareel boobu nga xam ne moo ko doon toggal soxna maam Kumba moom aaw boobu dafa mujj dafa mujj jëkkëram nekku fi daf koo mujj yóbbu fa mu nekk mais ñaareel bi nga xam ne aw bi moo ko doon toggal moom moo mujj tas kër ga ndax moom it dafa am ay yeneen i wujj peccorgo yoo xam ne fekk si nañ ko fa euh, waaye jaxase na leen dem na ba jaxase leen ak euh, boroom kër ga euh, ba tey ku ci nekk génn nga yaa ngi ci dellu ci sa sa kër yaay te li tax mu génne leen soxna maam Kumba mooy moom euh, nekk na ci kër gi euh, keneen ki ba pare daf euh, ki mu bi am na ci koo xam ne daf koo wax mbir mu doy waar gis nga maam Kumba moo tax dañu naan wax bal la bu xasee mhm. bay génn bu xasee ba génn kenn mën nañu ci dara nit nag moo ñu nett dafa fekk ne du tudd tur ndax nekk ci rajo mais li ñuy wax dañu cee am lu ñu leer benn wujju peccorgo bi nee na dafa ëmb ba toll ci weeram mu ne ko yow de ñu xuloo mu ne ko du yàgg ba nga gis doom xoolal wax ju rëy jooju te ku nekk xam na ne yàlla suñu borom mooy mooy rey mhm. mais li ñu naan balaa ngi ci làmmiñ soxna maam Kumba ñu teg ca teguñu ca lu mat une lu mat une semaine xale bi am doom doom ja matut doom ji nekkul ak yaayam ñaari fan xoolal wax ju jooju léegi eh, jëkkëru xale boobu ne ko na dem noppalu ci kër yaayam te moom aawoom nekku fi ma nga réew ma. Mm-hmm. moom keneen ki tam beneen wujju peccorgoom dafa feebar dem kër yaayam mool bëti ko xamuñu nag la mu wax ndax yàlla kese xam. Mm-hmm. xamuñu la mu wax boroom këram ba boroom këram gëm ko woo rakkam yu góor yooyu ki nga xamante ne ni doo euh, jabar ji dafa am doom doom ji dellu mu ne ko na dem kër yaayam ba noppalu ndax xam nga parfois boo nekkee ci kër boo feebaree mhm. tamit wujju peccorgo yi dañoo am euh, défaut moom tànk yaa ngi ci biir kër gi ay gi danga koy togg mhm. te maam ko bu ñu waxantee dëgg boo nekkee ci kër di mën ba mën a too ña nga fa nekkal li ñu naan dëkkandoo jàmm ci gën boo mënee ba mën a too nañu jël ay ga di ko togg mhm. mais duñu ko def moom muy daw loolu tax mu dem kër yaayam ji jëkkër magu jëkkër ji te moo jëkkër ji ñoo bokk ndey ak baay seen yaay génn àdduna seen baay génn àdduna mu woo ko carrément ne ko seen jabar yooyu bu ñu fa amee ñaari fan bu ñu dellusee bu ñu dugg sama biir kër ñu def ko caaxaan mu def dëggam xale bi dafa dellusi bi mu demee ba toog ba noppalu ñëwaat ci kër gi jour bi mu ñëwee jël depanse bi di nduggi ci la ko xamuñu jabar jee ko woo xamuñu parce que moom nekk fi. Mhm. waa ji ma lay wax moom nekk fi mais ndaw si jël na dépense bi di dem dundu nduggi mu woo jëkkëram ne ko neewoon naa la diw bu ñëwee bu mu duggati sama kër añam boobu muy ndugg bu mu ko taal sama kër. xale bi noonu la buubee ay bagaasam maam Kumba mi ngi kër yaayam. xoola tey rakk yoo xamante ne nii danoo waroon seen bët xonq <laughs> ñu geestu gis la ndax tey mu ngi noonu ndax tey yow yaa fi nekk seen ndey yaa fi nekk yaa fi nekk seen baay mhm. te xoola moom bu xalaatee ne ba muy nekk ca kër ga te li ci gën a doy ku nekk nag tuuma bi moom la ko teg parce que ba muy dugg ci si kër gi kër ga lépp benn la woon bu ñu daan ndekki booli lañ daan teg maam Kumba bukkut bënut yax ba mhm. ca nekk na mentañ mhm. nañ ko laaj borom waañ bi bëggi door bu ñu daan mhm. ndekki booli la ñuy teg seen lépp moo nekkoon benn may léegi dem nañ ba bu ñuy ndekki dañu ko nekk ak sa njaboot mu nekk mbir moo xamante ni nii daal jigéen ñi nañuy rafetal ndax fii àdduna la ñu nekk euh, euh, boo fi defee rek ñu wax du duñu sos nag li ñu naan li ñu naan sénégalais moom du sos waaye dafay yokk euh, kon nañu bàyyiwaat xel ci ci ci ci fee yi nga xam ne dafay am ci biir kër yi rawatina euh, ci wujju peccor ko yi maam kumba ñu rafetal ko ndax xoola mbir moomu rek maam mhm, kumba du dëgg du yoon te rafetul ku ko dégg kuy jigéen ku nekk rek war nga cee am lu la metti euh, te war na laa yee ndax xam nga ne tey mu ngi noonu mu ngi noonu te li ci gën a doy waar dafa bàyyi ba mu génn mhm. te na moom musu koo woo téléphone jëkkëram rakku jëkkëram jooju mhm. moom it nekk fi mais musu koo woo téléphone mu bàyyi ba jabar jabaram génn mu woo ko ne ko damaa bëgg mu ñibbisiwaat ñu nekk ci jàmm maam ko ma est-ce que kooku bu ñibbisiwaatee tamit mm. dina dina tax ñu nekk ci jàmm ak li mu wax ji mu wax ju rëy ji mu ko wax ak ni mu demee mm, doy na waar doy na waar mi ngi noonu gis nga daal ñun lépp loo xamante ne ne malheur la luy nekk si ñun kinne ñun ñoo koy teg suñu bopp mm-hmm. ndax yenente wuñu jàmm bëggante wuñu ba pare iñaanante nañ lu tuut ak lu néew loo xamante ne ni suñu moroom am na ko ñu ngi ko koy ñaanee loolu moo war a wujju peccal ko bi mm-hmm. ndax yàlla moo bind mais doole yemul mm-hmm. moo bind ba pare te yemalewul comme que yàlla nag moo jël sa jëkkër wala moo xam muy sa rakku jëkkër mu jox ko alal yow mu toog mais lu tax doo nangu loolu mm-hmm. liñ naan nattu la heure boo ko nangawee yàlla teggi la ko mais tant que yaa ngi siisu naan lii ma yàlla teg ni duma ko nangu ci ngay dee mais bu la tegee nattu nga jël ko nangu ko muy moo xam dangaa néew doole wala moo xam bépp coono bu mu mën di teg loolu yàlla la neex mu teg la ko yàlla la neex tamit mu jël sa mag wala mu jël sa rakk jox ko loo xamante ne lu jeex yow du la jox dara mais ci kaw loolu boo ko nangoowee boo ko nanguwul yëpp loolu mu am mais tamit ki nga xamante ne moom lañ dénk alal ji moom tamit dafa war a xamante ne lii mu am nii bu fanaanee ci ay loxoom yàlla la neex. bu ko yeewuwaalee tamit yàlla la neex gis nga euh, ci kaw gàttal daal kenn nit ñi dañoo gëmatul yàlla xamatul ñu ne lépp lu am lu ne yàlla la lépp loo xamante ne ni def nañ ko tamit lu <coughs> maanaam yàlla mooy sabab bi kon loolu bu ñu ko jëloon jël suñuy xel ak suñuy xalaat delloo ci suñu borom dinañ xamante ne ni loolu yëpp da jar ko fi àdduna bi dafa jeex ba pare koo laajte tey boo ko gisee tey dangay xëy suba ñu ne la anam ñu ne la gaañu na mm-hmm. loo ciy teg ay démb laa ko gis fii barki démb tase nañ ci loolu nga xamante ne ni diggante tey ak suba yow mën nga fee dee ba ñu fàtte la lu fi jaral xiiroo bi lu fi jaral ngaayo bi ngër-ngër gi wujju peccor yi nag man dama yaakaar ne base bi xamaguñu ko xamaguñu luy base bi mais man daal dama ne soxor moom ci la ndax soxoree sa moroomu jigéen weesuwut bu solee daal nga ne moom yi nga xam ne romb naa ko bu fekkee tu romb naa ko Touba marché Ocar wala Dakar yi nga xamante ne ni dañ ko doon jóg loo tànn mille huit mu sol xartam nga ne moom lii xartamam bii lu mu sol am ngarte loo cay teg te dalay wóor na yow mi koy xas danga ko amul ndax gis nga boo ko amoon doo am jotu taxaw fa di xool la muy sol wala la muy am liñ naan ci bi la nañu tàppewaat xol yi defaraat yi ñu bëggee nekk mais du gis lu ne nga ko nit wala nga kiyee ko nit te góor ñi tamit ñu bàyyi nekk benn nopp mm-hmm. yow bu fekkee danga yoon ñaari jabar Eh, wala nga wala nga nekk boroom kër li naan borom kër tànk mënut a booleen doo jam njabootam yi ñu nekk benn mhm. amul xaaji amul seen amul ci lu mu ciy jéng kooko nekkagul borom kër waaye bu kii ñëwee fii wax fii nga nga dank fanaanal jëmale ca kee bu kii ñëwee wax fii nga ànd jamono au final yow yaay mujjee doon ki nga xamante ne ni yaay tas sa kër <laughs> mu ngi noonu te maam ku ma ni nga ko waxee gis nga borom kër dafa war a mat boroom kër. Mhm. Euh, te bu la yàlla defalee nga jiitu dangaa war a xam ne dangaa jiitu ñu topp tamit xam ne ñoom yow yaa jiitu mhm. rek euh, ñu topp euh, gis nga yow mii borom kër waroon nangu say jabar di ñëw di la wax ci say rakk dara gis nga bu ñu la sañ ta wax ci say rakk dara rek wala say mag mhm. du ñu la sañ a wax ci seeni soxna. ndax ndax ndax ndax ndax li ñu naan ku dul ku xool euh, mm-hmm. euh, seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel euh, parfois bu fekkee ne yow yaa moom sa kër yaa uuf say rak say rak goo amaguñu kër gu ñu nekk say soxna boole la ak ñoom tamit dafay doy waar ndax ëllëg li ñu naan li ma la wax sànq rek nee naan looy faxas mot de dafa mm-hmm. fekkoon takku ca bu ñuy wax tamit parfois dafay baax ñu wax ci ñu baax ñi maam Kumba ndax gis nañu niñ ko waxee ci début ba gis nañu wujju peccal go yoo xamante ne ni tey seen jëkkër dafa am ay place yu bari mais dañuy jël seeni rakk seeni wujju peccogo la ñuy jël di leen tegaat ci bërëbu liggéeyukaay yooyu loolu xam nga boroom xol bu yaatu dëgg moo ko mën te pourtant loolu euh, yow yaa ngi cay def mais yaa nga yaa di nga ca di nga ca am ndam di nga ca am gërëm di nga ca am aw way loolu nag nit ñi buñ ko bàyyee xel rek yaakaar naa dinañ dinañ dinañ dinañ gën a bàyyi xel ci lu bari xam ne daal euh, ni ma ko waxee ñi nga xam ne dañoo nekk ci euh, kër moo xam ñu bokk bu ñu bokkul dara sa ay locataire dañoo war a nekk ci jàmm mm-hmm. rawatina ñoo xam ne nag seen jëkkër ni dañoo bokk ndey ak baay wala ñu bokk ndey wala ñu bokk baay ndax dafay feeñ ba ci njaboot gi maam Kumba gis nga bari na fi doomi baay yoo xamante ne ni dañuy bañ di gisante wala wala wala wala wala wala wala ñuy xiiroo ko ŋaayoo mhm. parce que dañu bi ñu nekkee xale dañu doon gis seen yaay yi ñoom ñu dëkk ci xiiroo ak ŋaayoo suñu màggee nag loolu la ñuy jàpp nañuy seen doom baay bi dañ koy jàppe noonu mhm. te fekk du ñu ay noonu ndax ay mbokk lañ deret dafa foor te ñoom ñoo bokk bàyyi waat xel bu baax di jël référence daal di wujju peccorgo yi nga xam ne ñoom dañoo jiitu ba pare nangu nañoo jiitu lu ñëw mhm. ñu jël ko nangu koo boot euh, ni ma la ko waxee am na wujju kër yoo xam ne boo fa duggee doo xam ne ñii ay wujju peccorgo la dangay foog ne ñii euh, euh, dañoo bokk ndey ak baay mhm. te amaana ay wujju peccorgo lañ mais nañ duñu duñu duñu duñu duñu du ñu umpalante Euh, tey ku ci ku ci bëgg dara di nga ñëw ba ci aaw bi nga xam ne moo jut ci kër gi nga ne ko nii ak nii bu fekkee nag aaw bu baax la euh, la nga ko wax bu dee lu baax da cay ànd ak yow bu dee safaan ba la cay daal di génne ba mu euh, te du bëgg du du du bëgg nga génn fenn ñu lay ree dem nañ ci ba wujju peccor go dafay xottil wujju peccor go mm-hmm. mais léegi bareetul maam ku ma loolu dafa jafe fi mu toll nii rawatina bu xew amee ku ci nekk da ngay da ngay dangay ngay da ngay da ngay da ngay dem ci sa ruq di fa waaje pour bëgg a daaneel sa wujju peccor te mhm. loolu yaakaar naa ne euh, gis nañ ko fi ay yoon yoon te pour man daal. wala euh, nga di ko conseiller loo xamante ne ni da lay wóor na yow bu ngeen génnee nga daaneel ko. mu ngi noonu mhm. wala nga dem ba xottil ko. Mhm. Euh, nga ànd ak moom li li tax kenn jëlatu kenn jëratuta wóolu maam kumba mën ngaa wóolu sa wujju peccoor gu ànd ak moom mu xotti la defal la lépp yow la nga war a sol solu ngoon gis nañ ko fi ba taay moom bu xëyee moom lay taaje laax ya Mm-hmm. bu dee ndékki ay ndékki wala dara moom lay sol imagine nag bu fekkee ne sa loxo jotu sa ginnaaw pour nga mën a demaat fortiwaat ak leneen euh, te lii ñuy wax nag dafa am lu loo xam ne ñëpp mën nañ cee teg ñëpp mën nañ ci ne duut baaraam soxna maam ko mu nekk tam boo xam ne daal euh, ni ma la ko waxee mën nañ ci mm-hmm. wax fii ba suba moo waraloon euh, duggoon nañ ci marché bi def ci mm-hmm. benn reportage dañuy ñëw déglu reportage bi rek bu ñu dégloo reportage bi doog a ñëwaat ci plateau bi aja nga dugalal ñu rek suñu reportage. mbokk ba tey ni ngeen koy amee ci seen émission bi di jamono tey ak li ci réew mi ni ñu koy defee saa ñu nekk indi tam bu am solo ah, tey ñu fas yéene waxtaane wujju peccorgo yi ci biir kër yi tax ñu doxantu fii ci marché Ndoumbé Diop defal leen ci reportage bu am solo ah, ñi ngi ak suñu benn yaay dañu koy daal di bàyyi rek mu nuyoo wax li mu xam tey ci suñu thème bi asalaamaaleykum yéen mbokk yi man Soxna Mbaye di leen nuyu sama taabu jigéen bi di sama doom sama xarit di wax lu baax rek di yeete di wax ci mbiru wujju peccer go ndax man bu déggee naa wujju peccar go war a wujju am na nag am na wujju peccar go yor a wujju waaye man damaa defe ne boo bokkut ak jëkkër nit lu bokk dëkkub àddina ci jamono bu yàqu bii war ngeen koo rafetal ndax àddina rafetal rek a ci am di dégg wujju peccar go yu xeex di roosante doo yéene sa morom jàmm sa bu amee jàmm nga mer su amee safaan ba da ngay kontaan nu di leen ñaan yéen ñëpp ah ngeen di ko wàññi ndax wujju sax jarul leen ne sàkkaa wujju peccar go man nag ci li ma gis man Soda mbay ci sama jëm man damaa defar ma wujju peccar go doomi nday la ndax man sama wujju peccar go yi ma nekkal sama borom kër nelaw man Soda mbay muy mati kenn ak soxna mi sàmm man de dan maa def nday def ma jigéen ca kër ga barke sëñ Fallou seer waa marché bi seede nan ko wujju peccar go jàmm rek la wujju sax jàmm la sàkkaa wujju peccar go nan leen yéenantey jàmm di def lu baax di yéenante lu baax seen jëkkër yàlla yokku leen yokku fan yi man mii leen ko wax nag dama cee aw ñun wujju peccar go yëpp na nekk jàmm na nekk salaam di yéenante jàmm di xàccandoo di doorandoo fii nag ci place bi ma taxaw wujju peccar go yi ma ci wax ci man moo ne ci ñu muy saytu rek ak i rakkam danoo yéenante jàmm ku ciy xotti da ngay ñëw ci Sey Touré ku ciy ñawlu da ngay ñëw ci Sey Touré def mag ki jiitu daal def ko njiit ki topp topp bu ko defee jàmm neex ci seen kër jàmmal seen borom kër ndax ñoo bokk nday bokk baay te mën noo xaajante kon yàlla na yàlla doole jàmm li ma leen di ñaane yéen gone tey yii def leen wujju peccor ko daal mag ak doomi nday ak xarit lépp doon jàmm la wax ci rajo bu bees bi lëmbe réew mi ci Darmanko FM. mooy ah Darmanko FM naari kon boo nee Darmanko rek yëngal nga aras ndax ñoom dañuy naari da doon Serigne Touba kon Darmanko FM nii de ca kaw ca kanam rek parce que Serigne Touba sama doom ji nag moom kinne moom xam nga ne lu mu laa day lëmbe mooy jimboo ci cin ku ko ñàkk da ñàkk lu bari mooy poobar ci cin ku ko ñàkk sa dara du saf. wuju peccor ko moo gën a aay wuju man gis naa ci koo xam ne moo raw wuju buggut a gis peccor goom buggu koo gis guddi buggu koo gis bëccëg te daanaka kër gi seen ñaari jëkkër yi ñoo ko bokk ñëw ci kër gi bu koo génne ci kër gi histoire bu dul jeex histoire gudd histoire ni amul lu mu defut pour nit ka génn kër ga def na lu ne xeex rek moo leen des xeex dem na ba di ko fël fekk mu ëmb pour bu koo dugal rek tëjlu ko moom mu moytu ko lu ci lu ci lu ci wujju peccor kenn mënu koo wax moo gën a aay wujju moo gën a garaaw wujju wujju sax moom boo tombee ku baax sax mun mun ngeen a ànd seen ngeen bokk seen lépp waaye peccoor gu man gis naa ci koo xam ne man man damaa yéemu ci yàlla. jërëjëf. maaleykum maa ngi man ndax sax wax dëgg <laughs> maa waaye sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba waaye li may laaj di wujju peccor gu man de li ma ci xam wujju peccor gu li ma ci xam man man sama wujju peccor damaa xaytoog moom waaw ñuy nuroo ay yére di niroo ay dàll ñu dëkk ba xëy tàqalikoo kenn musuñu at ba ay cër dox suñu diggante kon foofa moom xam nga dara ñaawut amul leen loo xam ne mos nañ koo seq lu ñaaw maa ak moom lu may jàmm ak salaam ndax ma yaakaar ne koo bokkul jëkkër moom pour leen seq lu may jàmm ak salaam ndax wujju peccur moom da nga koy jàpp ni sa bu yaako yaa ko nga jàppe ko sa rakk bu dee moo la mag nga jàppe ko sa mag man daal loolu laa yaakaar ngeen seq jàmm man daal loolu laa dund ci wujju peccur ko ñu dugg ci thème bi uju peccorgo waaw maanaam uju peccorgo daal moom jàmmoo ca gën parce que ñaan ñu yàlla boole wërsëg ñu bokk kër la yaa xam seen jëkkër bokk ndey ak baay wala seen jëkkër bokk baay bul nekkee jëkkëram am na lii sama jëkkër daf ma ko war a defaral déedéet ànd leen doon benn bokk nday ak baay mais xiiroo ŋaayoo wutal sa wujju peccoor go wujju wutal sa wujju peccoor go gel wutal jëkkëram gel di jaxase ménage am loolu du lu baax nit day def lu baax ànd doon benn di xàccandoo di doorandoo àdduna amul solo lépp ay teraanga la te ku jubóowut ak sa wujju peccoor go ëllëg seen i doom duñ juboo te yow yaa fi bàyyi te mën ngaa fekke mën ngaa ñàkk a fekke nañ def lu baax tey def lu rafet àdduna amul solo. man wujju peccar ga moom sawar naa ci macha allah ndax kër ga ma wàcc maa fa mujj ñëw fekk naa fa juróomi jeeg waaye man moom ca kaw lan ma teg man Tabaski bu ma duggut dañuy foog ne événement amut ku ayee ku ayee wuute ci bokk yam te lu ma dogal neex na leen parce que Sëñ cër boobu moom samay wujju peccar ga jox nan ma ko man na traire waaw ak jàmm ak salaam dëkk gu neex. waaw man si go yi laay wax yow débat bi nga wax tey dafa doon débat bu ma ñor ndax man peccorgo yi xeex ak xuloo man la isa peccorgo yi wax di xeex xuloo man loolu xaw ma ko pour man peccorgo buy xeex ak xuloo amul ci amul ci àdduna ndax peccorgo bi ma am daa baax si man di gay jaw Aïda saa topp ci ndey caam topp ci fan Fatmata ñëw na namuma dara maay caatu kër ga waaye aw ma go man yoruma peccorgo kee nag moom sama yaay lañ koy wax nee nañ moom mooy sama yaay kii sunu magu kër aaw kër ga mooy sama yaay ñëpp yaay lañu ne yaa mooy sa yaay waaw feccal goy bon moom aw ma ko moom moo ko dee déggee daf may jaaxal. salaamaaleykum waa Darmanko TV neen def bàyyi ñëpp ngi si jàmm maa ngi leen di nuyu di leen ziare waa da ngeen def tey thème boo xam ne ku nekk war nga cee joxe sa participation wax dëgg yàlla man moom aw ma wujju peccar go samay mag laa fa fekk presque man bu yogoo comme li Issa wax rek maay caatu kër ga samay mag laa fekk mais ñoom ñëpp baax. boot ma jàppale ma bëgg ma xam ne ñoo ma jiitu ca kër ga dinañ ma jox yokk et tout ñun daal wax dëgg yàlla peccorgo yi nga xam ne dan naa dañuy noonante ñun bokkuñu ci jàmm ak salaam waa ñun ñëpp daal waa ñàkk mën a wax nag moo waral lii mais sant rek ak gërëm mais ki ko def thème bi day sama rakk di sama xarit moo tax il faut ma def sama leen di nuyu di leen ziar. loo wax ci rajo bu bees bi di lool nag di ñaan mu jëm kanam waa di ñaan sama rakk bopp jii di Niki Sa yàlla dem ba jox ko moom rajo boppam boo xam ne day am employé am ñu di ko liggéeyal waaw mooy loolu ndax day borom baax di borom xolu jamaa bi. baax bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg yàlla na leen sama borom boole dafa jàmm yéen ñëpp. wujju peccoog am na waaye man pour ndax man damaa nekk sama rakk yu baax sës si man rëkk lu rëkk kenn isa moom billaay topp ci man rëkk ay da saar na nii faamata wax dëgg faa ne ca macha allah laf cat ay rakk yu baax laa yor. jërëjëf mu ngi noonu mu nekk reportage boo xam ne ñu ngi leen ko amaloon ci thème bi ñuy def eh, dégg ngeen eh, suñu yaay jo ñu nga xamante ne ni ñoom ñëpp wax nañ ñu ngi leen di eh, gërëm bu baax di leen wax amin ci ñaan yi dégg nga suñu yaay Soda Mbaye noonu mu ko waxee moom nee na ay wujju peccor goom ay xaritam lañ ñooy mm-hmm. xotteendoo ñooy dañuy dañuy dañuy dañuy ba dañuy togg di ko yakkal yaakaar naa ne loolu ñooñu ay royukaay lañ tey te ku ci nekk rek li ma naan ku la njëkk ci néeg néeg bu lëndëm moo lay wax ni nga tooge ñii ay maire lañ ñu ci bari tey ay maire lañ mm-hmm. mais dégg nga nekkin bu rafet bi nga xamante ne nii nekke woon nañ ko ak seeni wujju peccor ko ba tax ay ay cër ak leneen ak leneen ak leneen dox ci te lépp dëkkin bu rafet moo ko waral keneen ki ñu keneen ki ci topp maam ba dégg nga ko nee na li ñu wax rek la waxaat wujju peccar ko moo gën a aay wujju ndax nee na gis nga ko nee na moom dem na ci ba gis na ci ñoo xamante ne ni ëmb na mu koy fel ak di ko di ko di ko di mel ni daal bëgg koo génne ci kër ga la soxna maam Kumba looy wax ci reportage bi. mi ngi noonu am na solo ndax ci nekk dangaa wax li li nga dund. Mhm. Uh, suñu yaay jooju gis nga fi mu génnee. mais day am loo xamante ne nii dinaa ko ci souligner muy suñu yaay ji li mu wax. bu njëkk seeni boroom dañoo matoon. Mhm. dañoo amoon fulla ba seeni soxna duñ leen yàpp duñ leen dépassé. Mhm. gis nga tey ñoom ñooñu amu ci kenn koo xamante ne ni sañoon na jàll ci sa boroom kër di ko wax naan ko sa rakk ji kat nangam wala sa sa sa sa jigéen bi nangam ñemewuñ ko woon ndax ñemewuñ woon seeni bon ko léegi nag dëkk bi daa toj xale yu góor yi seeni soxna yi dañ leen a takk ci seen baat di leen diri fuñ leen jaarloo fa la ñuy jaar luñ leen waxloo fa la ñuy wax lan moo gën a gën a garaawate sax nag dëkk euh, euh, premièrement apartement la ñuy wax apa dëgg la bu ko sa jëkkër mënee mën nga koo def mais ngeen nekk si jàmm man ki ne am na ku ma doon tasee ci benn groupe bu whatsapp koo mhm. xamante ne nii moom nee na bi mu jëkkëram da koo jëndal oto bi mu ko jëndalee oto après moom muy jógee appartement moo jëkkëram au lieu ñoom ñaar ku ñu dugg si benn oto bi dem ñoom ñaar ku ne dañoo taal sa oto nee na bi ñu demee ba ci seen kër gu mag kër famille bi nee na ni ngi fekk bu ju peccar goom yi toog ci buntu kër gi ku nekk yor sa kopp suum sa kaw façon bi di ndekki nee bi biñ leen séenee ñu seeni oto nee na ñoom danga nga koy gis ñoom ña ñu ku nekk teg sa kaw façon bi nànk mu wax ma ko man ko yow loolu nga yaakaar loolu ndam la mënuma ñii dañoo bon ñii lu ne def nañ ko sama jëkkër sama jëkkër sax dem na ba nga xamante ne nii jaxase nañ ko ak yaayam ba yaayam da koo génne moo taxoon ñoom dëkkuñu woon ndakaar village lañ dëkk mm-hmm. ba tax mu ñëw Dakar takku di liggéey ba léegi muy dem Dubaay ak a ñëw ma ne ko gis nga jigéen ku defarul yow yaa yàq te gis nga sa jëkkër jooju mu ne daa xuloo yaayam tey mm-hmm. munul fexe fexe ba am dëgg ci kaw yaayam ndax dafa am loo xamante ne nii yaayam lebal na ko te du ko fay ci àdduna mm-hmm. muy jour bi nga xamante ne nii day judd ak ëmb bi mu ko ëmboon ak la mu ko nàmpal sax la mu ko nàmpal ci nelawam ma ne ko tey yow muy jigéen waroo ko woon a encouragé ci muy gën a juboo ak muy gën a meroo ak yaayam mm-hmm. wala muy am benn bët boo xamante ne ni mi ngi koy xoole ay jabari frère am ma mhm. ne ko yow tey boo ñëwee mu fekk ay jabari frère am ci këram mu génn leen nga ne ko ah diwkat bul defee nàngam dala ciy jaral sa bakkan bii ñu xam ne yow kat bay nga sa waar mhm. sa yaay yaay sa yaay nga ne ko sa yaay moo la jur mhm. lu mu metti metti moo la jur tey boo demoon ba am àdduna la ci biir te faale woo sa yaay tôt ou day mel ne loo xamante ne dañ ko teg ci safara day day seey mu ne ma man de maa ngi ciy def lu ma mën ma ne ko lii nga ma nettali nii nekkul jigéen joo xamante ne day sëy bëgg na jëkkër. waaw ndax maam Kumba euh, doguma la sax mais la ñu taale seen ñaari oto di dem. Mhm. pour man mënoon nañoo jël benn oto rek dem. Euh, te tey ku doonoon tamit parce que maam Kumba jigéen lu mu la ëpp lee rek. war na ko rawatina wujju pecc go lu mu la ëpp lee rek euh, am na ci ñoo xam ne la koy bëgg a wan. <laughs> parce que tey xam nga ne kite saab bi bu toogoon yor. kopp fonde kopp sombeem di ndekki <laughs> seen maam Kumba ñëw ak otoom. wax dëgg fa yàlla même même même même xel da ko dul nangu sax xama leen li. Mhm. du du du ñàkk gëm yàlla sax mais di nga gëm di nga gëm yàlla de mais nag dafa neexul ndax tey ku sañoon rek euh, sa moroomu nawle mi nga nekk xamante ne nii da ngeen bokk seen jëkkër dafa bokk lu mu am nga am ko. Mhm. mais nag yow mi nga xam ne yàlla daf la yàlla daf la séddee teraanga ji maam Kumba pour man bu ko war di ko ko di ko di ko namoo. te nit ñi mhm. léegi arme lañ ko def. gis nga jigéen gu ci am oto wala nga am fi ay leneen ak leneen oor dangay yàkkamti sa wujju peccor go xewle wala sa mm, wujju peccor go nga nga nga génn di ko wan man nii laa mel wala nii laa def looloo waral waraloon eh, keroog thème bi ñu thème bi ñu waxtaane bari na ci sëriñoon mhm. sëriñoonte gi loolu rek moo mhm. koy indi soxna maam Kumba ndax nekk ak sa moroomum jeeg ci biir kër gi yow nga mën a xëy boo ayee jënd say ginaar jënd say leneen dem nañ ba ci ay gi ci biir kër gi mhm. concurrence lay doon ku nekk danga naan su ma ayee nii lay demee bu fekkee ne maam Kumba nag yàlla da koo sédd teraanga moom bu ayee def ay ginaar yow bu ko man li ma leen di digal mooy ku nekk ak li nga tollool gis nga bu ku nekk yemee ci li nga li tollool rek maam Kumba tëgg ngëm yàlla sunu borom Euh, doyloo ko moom euh, yàlla sunu borom euh, danga danga di nga dem ba santaat yàlla maanaam daal gëm-gëm gi ak dignité gi mm-hmm. nanu ko yokk maam kumba lii la ko yàlla may bu ayee mën naa togg ay ginaaram man bu ma ayee ceebu keccax bi laa mën a togg naa ba ceebu keccax ba la ma ca mën lépp naa ko ca def ba ku nekk xam ne góorgóorlu naa mm-hmm. mais lii laa mën mais tamit nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi ñoo ci du bàyyi da ngay gis sàmba sugur gay mm-hmm. gee ah tey de dinaa añ si ndax maam kumba ayee loolu boo koy wax ki ne sam bu toog te ki ne sam moom mënul lenn li bu yàggee dafay gis boppam kon nanu mi ngi noonu nanu nanu nanu gën a nanu gën a <laughs> yërëmante waat daal gën a xam ne wujju peccorgo lé ak wujju lépp benn la xam naa ne tem wujju sax dinañ ci ñëw incha allah waaye eh, wujju peccorgo yi daal nañu gën a rafetalaat xam ne jéeg bu fiy say ëllëg rek eh, bu ëllëgee say doom dafay màgg te bëgg nga sa doom yooyu bu ñu màggee ñu leen di waxal lu baax la nga xamante ne ni moom nga nekkee woon ca kër ga eh, kon nan koy rafetalaat daal ñi jiitu jiitu ñu topp topp mm-hmm. te ñuy gën di yërëmante ndax dañoo nekk dëkk boo xamante ne ne dëkku teraanga la dëkku yërmande la ndax mag ñu baax ñi ku ci nekk daf fee ñaan mm-hmm. léegi nag yow boo amee dërëm bokk kook say wujju peccor go boo amee ñaar dërëm bokk kook say wujju peccor go ndax ëllëg doom yooyu nga xamante ne am nga ko ca biir kër ga mm-hmm. ndax li ñu naan wax nga ko ca début ba mun ngaa fekke mën ngaa bañ a fekke mm-hmm. te bu ëllëgee euh, bu fekkee ne wuute nga bu fekkee ne wuute nga bu fekkee ne rafetaloon nga rek say doom seenu nekkin ca kër ga euh, dana dana dana dana dana dana mën a neex soxna kon daal nañ nañ rafetalaat daal ju peccorgo yi xam ne du lenn loo xamante ne ni bokk wërsëg la rek ni ma koy waxe ñoo xamante ne ni yéen a bokk kër euh, bu dee ay locataire la dafa war di rafet mm-hmm. surtout bu dee wujju peccorgo yi kon nañ ko gën a rafetalaat daal mm-hmm. bu baax a baax euh, soxna maam ko waaw mi ngi noonu kinne noonu la demee euh, lu lu ci waaye waxet dinga ci am loo bàyyi li ci biir kër yi moom kenn mënul dajal lépp te li li waral safaan bi yépp si suñu biir la nañu nekk xoolaat suñu nekkin xoolaat defaraat toogaay te xamante ne ni jigéen magasin magasin la rek lépp loo xamante ne nii lu baaxan ci leneen tamit a ngi ci te bu ñu bëggee lu ñu fàggul suñuy njaboot ëllëg ak si comme ni nga ko waxee sànq il faut ñu muñalante te sàmmanante kóllëre goo xamante ne nii bu ñu ko fayee ci suñuy doom euh, lu baax lay doon ndax mën nañ mën nañ fekke mën nañ tamit wuute ndax kenn xamul kañ la tey mën nga jur sa doom ji nga yàlla jël sa bakkan yal na yéex tey ñoo ko fii da ngay mujjee bàyyi leen ko dem ndax mënoo ko yóbbaale te boo soñoon sax nag dina fi toog lu yàgg ba tekki pour mën laa fekk si mais ñi ngi koy teg ci seeni loxo tey boo leen jigul lu lu baax te xooluñ seen diggante ak seen yàlla tey sa doom jooju noonu ci naqar lay dëkk mm. te nit ne nee na te olof Njaay danaa nit ku nekk lu mu nàmp lu ne loolu lay tàqamtiku te mën nga loraale sax say doom ba ñu jël sa jikko mhm. bu doonee doom yu jigéen nag ñu gën a tee bonati mhm. ndax la nga wone rek loola moom la ñuy gis mhm. Kiné sàmm daal fi mu nii eh, mi ngi noonu mbir yaa ngi noonu xëy na tamit auditeurs yi ñàkkut bu ñu toogee ñoom tamit dinañ ci waxtaan ci seeni biir ñu xool ndax doy na waar daal fi mu toll nii. Mhm. Euh, mu ngi noonu maam Kumba dafay mel ne sax euh, yamoon naag waxtu wi nga xam ne euh, moom la ñu wala yëkkatee jataay bi ñuy jégalu bu baax nag ci oustaz Moustapha Mbacke Diouf ndax xam nga ne daanañu gunge ci bile émission waaye dafa nekk ci ay yitte rek loolee waral tey du ngeen mën a am oustaz Moustapha Mbacke Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane di ko wax ne suñu xel yépp moo ngi ci moom ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci rajo bi di dar manko rawatina ci émission bi di jamonoy tey kon oustaz Moustapha Mbacke Diouf suñu xel ak suñu xalaat yépp mi ngi ci yow ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm di ñaan suñu borom dolli la jàmm bu baax a baax mu ngi noonu gërëm auditeur euh, ah daa mel ne maa ngay bëgg a tàggoo te bàyyeegu ma soxna maam ko mu tàggoo de ah. dafa lu la <laughs> ayca ma bàyyi ko rek moom soxna maam Kumba mu daal di tàggatoo. waaw ki ne foofu la ñuy tàggatoo nag euh, ni nga ko waxee dañuy nuyu. oustaz di ko di ko gërëm te di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram ndax euh, xorom na ci émission bi nag mhm, xam naa ne auditeurs yi ñu ngi koy bégee mhm. di ko kontaane comme ñun ni ñu koy bégee di ko kontaane mhm. eh, nuyu woon naa ko ci bi may commencé dama koy nuyu waat muy tonton Mansour feccum leen bu neexee ndey moo téye sa mbaggee moo ñu dooleel euh, encouragé ñu ba ñu ñeme tey waaye duma tàggatoo nag tey ba nuyu ma sama faaleen bu ñaawul bi tey dama koy nuyu sama borom kër bi maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm waaw di ko naan ko lépp lu mu bëgg rek moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal yàlla bu ma gis lu mu ragal ma continué wala ma bàyyi. ah yow la rek émission bi de ah. émission bi de lépp mën naa ne. yow la rek waaw mi naa ko foofu. suñu technicien bu ñaawut bi ñuy naa ko gërëm naa ko. mu ngi noonu jamonoy tey ak li ci réew mi lu ne mën na cee nekk dañ ko na mu nuyoo faaleen ba xam naa ne fa mu toog di nu bàyyi xel ma ngay ree xol baa ngay neex man mii sax maa ngi ko ciy nuyu bu baax macha allah cheikh maa ngi koy nuyu di ko gërëm bu baax eh, nuyuwaat auditeur auditrices yi nga xam ne ñi ñu doon bàyyi xel di wax ne lu ci jublaaw bi la eh, lu ci dëng nag ñun la suñu yéene rek moo nekkoon toog di wax eh, ngir gën a defaraat toogaay yi nuyu ko moom tamit kilifa kër gi di tonton Mansour ak njabootam ñu ngi koy nuyu di ko gërëmaat bu baax ci jàppandal bi kullu technicien bu nekk ci kër gi rek euh, euh, Serigne gumba la moom it dafay jàpp ci liggéey bi Lamine Ndiaye euh, Serigne saali Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax Serigne Massamba Tànne ne duñu ko fàtte ak Baye Modou Babu ak képp ku nekk ci kër gi rek jàppal ne ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu tonton boobu nga xam ne moom mooy PDG Darmanko PDG Dakar Buzz moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam bu baax ak yi ñoom ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di wax ne rajo Darmanko FM mooy rajo askan wi cant ak ngërëm ñeel na leen way leen du safoo ñu leen di sagoo ñu ngi leen di jox dox daje ba beneen altine incha allah ci seen beneen émission jamonoy taag ak di ci réew mi jaa jëf bàkk ba mooy waleen safoo ñu leen di sagoo Darmanko FM la rajo leader